na nga rafleel feel ci luy tegtale ñaar wala mbooloo ida ma usnida bu ñu ko wéeree lis nay ni ci ñaar nga xam ni ab tës ni yaay faayil bi bu mu tax feel ja nga def ca wenn xaraf wuy tegtale ñaar de na nga ni qaala rajulaani comme ni ngay waxee qaala rajulu rek aw jam'in wala bu fekkee dañ ko wéer ci jamo da nga ne jaa al muslimuuna waaye bul wax ni jaa u ni ki faasa gañ na a shuhadaa u shuhadaa ya way seede ya waxul faasu xanaa ni faasa rek loolu nag ala lugatil fusxa mooy la làkkinu arab ci waxinu arab bi gën a fasaaxa mooy nga xam ne fenel ju ñu wéer ci ñaar wala mbooloo moog fenel ju ñu ni wéer ci kenn ñooy niroo ni nga naa ne qaala jaa zaydun ngay waxe jaa zaydoona dégg nga waa loolu ala lugatil fusha amma badul moom mooy li mu ne naam waqad yuqaalu amaana ñenn ñuy wax naan saida zaydaani ak saido zaydoona su ko defee alif gi ci saida du damir waaw yi ci saido du damir déet ay xaraf la yoo xam ne yuy tegtale mbooloo la waaye nag duñu faayil wal fi'lu li zahiri baadu musnad mën nañoo wax ne saida ak saido wal fi'lu te te fekk fi'l ja saida jooja musnadun lu ñu wéer la li zahiri ci li simi zahir baadu gannaaw ga mën nañu ni saida zaydaani ak saido zaydoona anee ñu am nañu ko tawil wa asarru an najwa ci alquran nee ñu waaw wi xaraf wu tegtale mbooloo la waaye du damir najwa mooy faay loolu danañu ko wax wa yarfau alfaila ficlun udmira ka misli zaydun fi jawaabi man qara wa yarfau dana mën a rafa fiilun udmira fiil ju ñu xadaf mën na rafa fail idmaar bu ñu ko waxee ci lisim mooy def ko damir ju nëbb waaye idmaar ci fiil mooy xadaf rek fiilun udmira fiil ju ñu xadaf mën na rafa fail fail ja des ka misli qawlika zaydun failu fiil ju ñu xadaf fi jawaabi qawli alqaayili ci booy tontu kala ni man qaraa ku jàng sànq nga ni ko zaydun ay qaraa zaydun kon zaydun boobu feelam dañ ko xadaf man qara aji moo tax nu xam ko fokk mu am mandarga nag bu ñu ko dalil bu ñu ko xamee de nekki man qara aji jiitu moo nu xamal ne qara zaydun moo doon jawaab wa taa'u taanisin talil maadi ida kaana li unsa ka abat hindul ada wa taa'u taanis tali day topp al maadi ya feelu maat ida kaana bu feel ja nekkee li unsa ñeel faayil juy jigéen ni ki jaa at hindu darabat suaadu nee na kon taawu tanis mooy topp ci feelu maat su fekkee feel ja jigéen a ko ni ki abat bañ na hindu al azalor waaye nag fan lay doone lazim ba kenn du ko mën a dindi mukk abadan abadan wa innama talzamu du du ware ma ngi ware ci rekk nag moom taagi fi'la mudmarin feel ju ñu wéer ci damiru mu annas muttasilin mu jokk bu fekkee ni feel ji damiru mu annas mu ca la ca jokk la ñu ko wéer kooku nag fokk mu daa mooy dikk dégg nga ni ki tey soo ne hind dara bat du dégg nga aw mu fi min saata xirin maanaa maanaa boo ne tey as sajaru kasurat sajaru jam ismu jins la dégg nga dañu koy taaniisal kon boo ne booy bu bu damir ba de bu fekkee damir ba la feel ji nëbb fokk mu ànd ak taagi nga ne ashajaru kasurat albaqaratu jaat albaqaru nag ya jaat ndax feel ba damiru muannas la rafa aw mu fi min wala lu dégle zaata xirin borom pay wala loo xam ne maanaam xaqiqi yu taanis lismu zahir ba ni ki jaat hindu wala barakat a naaqatu hindu ak naaqatu ñaari lisim yoo xam ne yufhimaani zaata xirin xiru moo di farj maanaam borom xaqiqi yu njigéen mooy zaatu farjin xir bi maana al farj asluhu xirxun ñu ñu waye fale ko xadaf genn dégg nga nee na feel bi daal fi taawu taanis gi di ware mooy su fekkee ni damiru mu annas mooy faayilam kon fokk feel ji moom day ànd ak taa wala lismi zahir ji nga xam ni zaatu farjin la ni ki mar'atu wala naaqatu jaatil mar'atu jaatil naaqatu fokk taaga ne ci amma nag bu dee leneen nag bu dul loolu ah kooku du war ànd ak taagi su fekkee ne lu ñuy jigéenal la waaye du borom pay te it du du damir ba xanaa la ismu sahir ba niki baqaru shajaru wala muy ismul jam'i niki qawmu ak raxtu yooyu yëpp bu la neexee def bu la neexee bàyyi man nga ni jaa al qawmu man nga ni jaa atil qawmu kadabat qawmu luutin kadabat dégg nga lu alquran kadabat qawmu te qawmu mooy faay ndax ismul jam'i la man nga ni ka jaa al qawmu man nga ni jaa atil qawmu bu dee ismul jins ni ki shajar ak baqar ay garab ay nag man nga ni kasura sajaru kasurati sajaru man nga ni jaa al baqar wala jaa atil baqaru waaye su fekkoon damir bu dellu ci mu annas la nag su yeboo xaqiqi yu jigéen la borom pay wala da majaasi yu jigéen la ni ki sajaru ak baqaru lu mu ci mën doon bu dee damir mu annas rek mooy faayil fokk taa gi nekk ci moo tax boo doon wax tala achamsu bu la neexee waxe ko noonu tala achamsu chamsu mu ànnata bu la neexee nga tala a chamsu bu la neexee tala a tis chamsu waaye nag su fekkoon ne damir bu dellu ci chamsu la nag ah nga ne a chamsu tala at fokk nga def ci taagi dootoo mën ne wax a chamsu tala a déedéet looloo leen wa innama talzamu fi lamun mari muttasilin amu fi milat dégg nga waaye nag wa qad yubiixu lfaslu tarka taa'i fi naxwi ata alqaadiya bintu lwaaqif fi'al ji nga xam ne sax doonte ci borom pay la ñu wéer fi'al ji ba nga xam ne dafa waroon a ànd ak taa laaziman nee na bu fekkee na nag faa'il ja dafa jokkowul ak fi'al ja leneen dafa jaar loolu mën na tax mu dagan ay tàng nag ñu bañ a indi taaga niki moom la ni waqat yu biixu mën na daganal alfaslu tàqalee fi'il jaag faayilam mën na daganal tarka taa yi ñu bañ a ñu bàyyi taa bañ ko andi fii naxwi qawlika ci lu mel na boo nee ataa dikkal na bintul waaqifi doomu boroom waqaf ba dikkal na alqaadiya pour mu atteel ko waqafu baayam boobu ataa waxuloo atat te bintu xaqiqi taanis boroom pay la waaye nag tàqalee gi mafool bi daf fa jaar ata alqaadiya bintu soo noon atatil atat bintul waaqifi alqaadiya foog nga indi taa waaye nag laqad walada al oxaytala ummu suin ala baabi ala baabi istiha sanamun wa shamu laqad laqad walada al oxaytila oxaytila tasxiru axtal benn waykat la woon bu ñuy wax laxtal kii nag di ko ŋàññi ba tuutal tur yu faf ko ngir ngir jëm ko sof suufeel laqad wala ta jur na ummu sow in yaay ju bàyyi yaay ju bon moo jur al uxayti la laxtal waykat la waaye mu saboté ko tax mu tersi ala babistiha nekk na ci buntu jekkikaayam la sulubun ay sulub ay xiram wa caamu na ki mandarga jamu caamatin ay koy ñaawal ma ngi me way wal yaa ayyuha alladina amanu ida jaakumul muminatu seetal ida jaakumul wala lu tax waxul jaatkumul muminatu te muminatu xaqiqi tanis waaye nag fasale gi mu fi jaarale mafool mi kum ji kum ji mafool bi taqalee fiil jeeg faayil moo tax mu dagan ida jaakumul muminatu qaadi xadara al yawma xadara qaadiya al yawma imraatun ma ngi mel ni ata ata al qaadiya bintul waaqi xadara al qaadiya al yawma imraatun bañ wax xadarat wal xaz ma faslin bi illa fuddila kama zaka illa fata tubni al ala wal xaz bu xadaf taa nag fuddila gënal nañu ko ci fi'il joo xam ne faay la mu annas la xasaf xasaf taaga danañu ko gënal nga xam ne mooy gën rafet andi ma faslin ànd ak tàqalee bi illa su fekkee illa moo tàqalee diggante fi'il jeeg faay lam ni ki soo ne maa xadara illa hind kooku xadara ji mooy gën xadarat lu tax ndax lii ci listisna la te mustasna minhu mi day doon a nakiratun ammatun muzakaratun la ndax soo ne maa jaa illa maa jaa illa hind waru la wax ne maa jaa at illa hind ndax da dafa mel ni da nga ne maa jaa ahadun illa hind kon nag faayit bi muzakkar la su ko dégg nga mu maa zaka sellul illa fataatu ibnu ala lu dul xale lu jigéen ba xam ne ibnu ala moo ko jaamam ba maanaam maa zaka ahadun ahadun su yeboo nit ku góor la su yeboo soo ne maa jaa ahadun kenn dikkul ahadun jooju bu yebooy góor bu yebooy jigéen de moo teket lu mooy ismu jins am bi nga xam ne ci la ñu mën a seetee fataatu ma zaka illa fataatu maanaam ma zaka ahadun illa fataatu moo tax loolu nag terewuñu ma zakat ji waaye dafa dul rafet ma zaka ji moo moom la ni wal xasfu xasaf ma faslin bi illa ànd ak tàqalee bu illa tàqalee feelam ak faayilam diggante feel jag faayil faslu googu fuddi la gënal nañu ko moo gën tudd ga xadaf ga moo gën tudd tàgg ni ki ma zaka illa fatatuna moo gën a rafet ma zakat illa fatatuna li anna al mustasna minhu nakiratun ammatun wa lafzuhu muzakkarun ndax dafa ma da nga ni ma zaka ahadun illa fatatu wal xadfu ma yaati xad yaati bila faslin mën a xadaf taagi ay tang mën na am ñu dégg ko bila faslin ci lu tax si boy nettali na qaala hindu قال هند على قلة حكى سيبويه قال فلانة قال قال فلانة سيبويه موكو ناتلي ني عرب وخناكو أنك فلا مسنة ودقت ودقها ولا أرض نبقل إبقالها نانا كوكو دفا يلوني أبقلت ndaxte ah ab xalat la waroon wax damiru ard ard mu annas la kon lu doon cosaan wala ardun ab xalat amul benn suuf bu saxal ibqaalaha comme na muy saxale fala musnatun wadaqat wadqaha wala ardun abqala ibqaalaha ñun dafa waroon ne ab xalat ibqaalaha waaye daal xadaf na taaga ci ab xalat fa imma tarayni wali limmatun fa inna alxawaadisa awdaa biha baytu ci war a topp wa ma damiri zil majaasi fi shirin waqa mu ngi noonu wa waqaa xew na xadaf taa ci fiilu muannas ma damiri zil majaasi ànd ak damiru borom majaas damir goo xam ne majaas yu taale fi shirin wa waqaa tabbi na xasaf gi fi shirin ci way ma damiri zil majaasi ànd ak damiru borom majaas mooy fala musnatun wadaqat wadqaha wala ardun abqalat abqalat hiya ji mu nëbb ci majaasu tanis la ci ard la dem moom ma damiri dil majaasi fi shi'rin waqa aw ma jam'in siwa salibi min mudakkarin ka taa'ima ihda labin wa taawu taagin doon wax na nga di ko jokk ci feel joo xam ne faayilam day muannas wa taawuta ma jam in bu àndeeg fayil joo xam ne jam u la maanaam baat bu tegtale mbooloo la si wa salimi min muzakkar lu dul jamu muzakkar salim naka noonu si wa salimi min muannas ñooyam lu dul jamu muzakkar salim ak jamu muannas salim taagu ànd ak booba jam bépp baat bu tegtale mbooloo su yeboo jamu taksir la su yeboo ismul jam'i la soo boo ismul jins la yooyu yëpp maanaam mbooloo lay yor ismul jam'i ka qawmin masalan ismul jins ka shajarin wa baqarin yooyu yëpp mbooloo la tegtale wala muy jamu taksir ni ki rijalin aywa kooku fi'lam bu dee fayil taaga ca fi'l ja dana dagana saxal dagana xala nga ni tey jaa al qawmu mbaa jaa ati al qawmu alquran dikk na ci ba tey kazabat qawmu nangam dégg nga wala ismul jamci ni ki qawm wala ismul jins ni ki tey jaa jaa atil baqaru wala jaa al baqaru baqaru ismul ismul ji- jins la mufradam taa moo koy andi soo nee baqaratu benn la waaye boo nee baqaru mooy nag yi kon mën nga ni jaa al baqaru mën nga ni jaa atil baqaru su dee jamu taksir mën nga ni jaa al rijaalu mën nga ni jaa atil rijaalu Eh, mulhatul iraab ne wa in tasa fa zid alayhi taa nahwu shtakat raatuna jamu tak jamu tak lu dul nag mu des jamu siwar salimi wal mu- eh, muzakkar ak salim muannas yooyu ka ka ka mufradiha dégg nga jamu muzakkar salim moog mufrada ma yam ni nga xamee ni dooni eh, jaat zaydun dooni jaatil muslimun ni nga xamee ni jaa zaydun rek ngay wax jaa al muslimun ni nga xamee ni jaat hindu ngay wax bu dee hindaatoon jaatil hindaatu muzakkari salim ak muannas salim faw maa ka mufradayhima ñoo ko seeni ñaari mufrad yooyu fi liqtiraani bi taayi wa adamihi waaw waaye bu dul boobu bépp baat bu tegtale mbooloo te du jam muzakkar salim du jam muannas salim soo boo day jamu taksir wala ismul jami wala ismul jins nee na kooku euh, ka taa ima ihdal labin ma ngi mel ni taagu nekk ci mufradum labin mooy ay birig mufrad mi mooy labinatun léegi su la neexee nga ni inkasaratil labinatu wala inkasara labina dégg nga wal ni ma waxoon jaatil baqa baqaru wala jaa al baqar walxazfu walxazfa fi nicma alfatati istaxsanu li anna qasda aljinsi fiihi bayin wastaxsanu rafetlu nañu nag alxazfa dinditaa fi nicma alfatatu fataatu mu annas la xaqiqiyu taanis te mooy faayilu nicma waaye nee na ba nga xamee ni aljin ak ali jins la ndax yow soo ne nicma rajulu zaydun yëg nga ne alji ci zay rajulu ali jins la maanaam boo ne nicma rajulu da nga mel ni góor a baax kon da ngaa tagg xeetu góor lépp daal di ni zaydun kon ñaareel nga zaydat da nga na ne huwa zaydun loolu moo tax tagg nga ko yaari yoon tagg nga ko ci xeetam tagg ko moom dong nema moo tax mu ni rafetlu nañu xadaf ga li anna qasdal jinsi ndax jublu jins ci aljooju bayyinun lu bir la dégg nga nemal fataatu looloo tax doo ko doyloo nga ni hind Eh, maanaam mel da nga ni ay xale lu jigéen a baax diw waaw boo nee xale jigéen a baax tagg nga lépp luy xale jigéen nga daal di ko jagle kenn ni diw moo tax tagg wuñu fedd li la comme jins lañ ciy jublu nag mel na ku nema jinsul fit fa fatayaat ah kooku kon rafet na nga xadaf taaga ah rafetlu nañ ko waxu la ni moo gën rafet faw kat déedéet melul na ma zaka illa fata tubnil ala de ah waaye nag rafetlu nañ ko rafet na ñaawul loolu la ñaawul rek la tollool kat ne kon nimatil fataatu kay nan nga ko ah ah wal aslu fi lfaili an yettasila wal aslu fi lmafuli an yanfasil lu doon cosaan fi lfaili ci fail an yettasila mooy mu jokk bil fiili looloo doon cosaan ndax fail dafa daan yelloo jiitu mafool door a dik kon lu doon ci cosaan ci fail mu jokk ci fiilam maanaam jokku ca ci xatt ndéem damir la ni ki darabtu wala jokku ca rek ci ci lafz ma li nga xam ni ci ay masque li faa baa a ñeeloon na faaw baa a ba ñu koy def mabniyu lil majhul te moo doon dagana kasra te mu gën rafet nga ni bii a jaayeef na wala li lishmaam ni ki bii a wala daal dàmm moom moo gën a sore ni ki buu a jaayeef na yett yooyu daganoon na ci mu ni ba tey bu dee iftaala wala in in faala te laam ga wér ayin ga ràgg ni ki ixtaara ayin gi yàlla woon mooy alif googu am in qaadaat ayin gi waaw la woon mooy laam googu du dëgg kooku kon li ayin gi topp ci ñoom te mooy taagi ak qaaf googu yetti xaraka yooyu dagan na ci soo dee binaa u lil majhul nga ni ixtaara tànn na nga wëlbati ixtiira tànneef na ixtiira boobu nag mooy gën a rafet man nga ni ixtuura man nga ni uxtuura muy dàmmi kese inqaadaat noonu wa shibhin ak lu niroog ñoom kullu ftaala wam faala mu'tallayil ayni saxiixayil laam mu allayil ayni saxiixayil laam mooy loolu moo ne washifun ak lu niroog ñoom yan jalilu feeñ aywa aywa wa qaabilun min zarfin aw amas aw masdari aw xarfi jarrin bi niyaabatin xari wa qaabilin lépp lu nangoo niyaaba lu nangoo remplacer faayil muy laan min zarfin zarfin moo xam zarf la ni ki nga ni dégg nga aw min masdarin wala loo xam ne masdar la dégg nga te mooy bu dee muxtas aw xarfi jarrin wala muy xarafu jar ak majruuram lépp lu ca nangoo remplacer faayil xarin lu yelloo la bi niyaabatin ci remplacer dégg nga du dëgg mooy lu mel na nga ni julisa fil beyt julisa toogeef na ana naibu faa'ilam jaar ak majruur julisa fil beyt du dëgg wala nga ni tey siima al yawmu ah kooku sax zaraf la woon aywa nga def noonu bu dee zarfu mutasarrif amma saraf joo xam ne nag moom laa yantasarifu ni ki inda wa inda fiiha nasbu yastamirru inda moom toujours nasab dong la mën a am ah kon lam yaqbal ma ne su ko def naay faay loolu mooy maanaam wa ma wa qaabilun lépp lu nangu dégg nga moo xam zaraf la wala masdar ni ki nufaxa fi suuri nafxatun du dëgg masdar la woon nafaxa nafxatan nga ni nufixa nafxatun wala xarfu jar dégg nga loolu lépp lu ci nangu rek yelloo na remplacer faayil kon faayil du ñu ni na la koy remplacer mafool bihi dong lay doon déedéet waxuñu loolu waaye nag mafool bihi day moo doon borom kër ga moo ci gën yàlla jaaduwul day mu nekk fa ni ñu mu nangu ko ñu wacc ko fa di ko jox keneen taxut nag muy taar moom la ni wala yanuubu baadu haadi in wujid fi lafdi mafulun bihi wa qad yarit wala yanuubu du remplacer faayil baadu haadi lenn ci yii ma la wax masdar ak zarf ak jaar ak majrur yooyu dara du ci remplacer faayil di yër rafaawoom ga baadu haadi lenn ci dara du ci remplacer faayil in wujida su fekkee fekk nañu mafuul bihi fi lafzi ca lafz ba ndax kooku moo doon cosaan waaye nag ah waxat yarit loolu mu wax dana am ay tàng naam waaye dadul bare xatta alquran am na ko ci ñu ko ci riwaaya am na ñu jàng lii jisaa qawman bi maa kaanu yaksiboon ci suratul jaasiya lii jisaa qawman ah feel bi nun dañu jàng li yajziya qawman ah léegi qawman mooy maf'ulu bihi moo doon yelloo niyaaba nag waaye ñu ma ngi fi ni ñu mu ñu wàcc ko fi def jaar ak majruur ja bi maa kaanu jooju muy naayib lii jisaa qawman bi maa kaanu bi maa kaanu suñu leen woon ana luy naayib faayil luy gisaa doo man ne xaw man ndax xaw man ña ngi ko nasab te naayib faayil dañ koy rafa kon nag bi maakaanoo jaar ak ma juróor jooju barabu rafaa la ne mooy naayib wa innama yardal munibu rabba maadaama maaniyan bikirin qalba du dëgg wa innama yarda du kontaan loo al munibu ku tuub dellu ci yàlla rabbahu boroomam du ko kontaan loolu dul maadaama diiru la mu nekk maani yan di ku ñu itteeloo koo koy naayib koo koo soxla naayib faayil ndax ismu mafool la ismu mafool yaamalu amala fiilihi maani yan ni ki nga xam ne yoonaa fiil bu ñu rakkabal ba noonu la bëggee naayib faayil maani yan ismu mafool it noonu lay bëggee naayib faayil kon nag ana naayib faayilu maani yan su fekkoon ne da nga noon maani yan qalbuhu waaw kay mafuulu bihi ngoog remplace na jël na dawaaram jël na ateem kenn waxu ca dara waaye nag nga wàcc ko nasab ko maani yan ana naay faayidam bi zikrin jaar ak majruur te mafuul bihi ni fa ñum wa qad yarit wa qad ruya bihi fi alquran li jisa qawman bi ma kaanu yaksibun yaar yooyu riwaaye laay jooju ak baytu arab bu fasaaxa bu moo nu xamal ni loolu dagan na loolu la ni ah wa qad yarit waaye barewul de man yu ma lam yucna bil alyaai illa sayida wala jafa dal xayi illa du huda lam yucna bil alyaai illa sayidan lam yucna mooy maaniyan ñooyam uniya yuna feelu mudaari um mabni lil majhul léegi moo dikk dafa ko dafa ci da ko jasa mag lam lam yuna ah bil aliyaay mooy jaar ak majrur ndax illa sayidan ma ngeeg nasabam su fekkoon da nga ne lam yuna bil aliyaay illa sayidun waaw kay sayidun mooy naay faal illa xarfu istisnaayin mulqaatun ndaxte loolu ci ci maanaam na mun man fi taam la du dëgg kon lam yuna illa sayidun bu ñu ko waxoon ñoo xam ni kon bil aliyaay barabu nasab la ne la doon la mu doon place am naka jëkk waaye illaa sayyidan bi ñu gannaaw nasab nañu ko ana naay fay lam yoonati mun ko ñàkk mooy bil aliyaa i loolu mooy wala yanuubu baadu haadi in wujid fi lafdi maf'ulun bi mu dellu ni waaye nag wa qad yarit léeg-léeg mu am waaye qad yadullu ala taqlili ma al mudaari la dégg nga kon nag du arabiya ga ñu tàmm dëgg-dëgg xanaa nu dellu si ci alquran la alquran léppam fasaaxa la amul amul lu génn fasaaxa waaye itam taxut ñu kenn warlul la ni la mboolem riwaayaatam yëpp ñoo yem ci xaddul fasaaxati wal xusni déedéet am na ñu gën rafetante ku ne xam na ni liy gisaa qawman kay bi maa kaanu ah kooku googa tar amul ci googu riwaay waaye génnul fasaaxa nag ndax su génnoon fasaaxa mutlaqan riwaay alquran du ci dikk moom waaye daal bu fekkee xiyaasu arabiya dong la topp ñu ci riwaay kon dañuy wax li gisaa qawmun waxal wa bittifaaqin qad yanuubu thaani min baabi kasaa fiima iltibaasuhu am umin waqad yanu bu mën na remplacer asaani mafoolu ñaareel min baabi kasaa ci buntu kasaa kasaa mooy sànge na ni ngay waxee kasawtu zaydan jubbatan wala nga ni aataytu zaydan dirhaman baabu kasaa ñu ngi ci lu bépp feel bu nasab yaari mafool te duñu woon mubtada xabar ci cosaan maanaam bu la neexee ni feel ja du woon naasix ni ki kasawtu aataytu wahabtu du dëgg yooyu baabu kasaa la ndax day am ñaari mafool yoo xam ne benn du woon du ñu woon mubtada xabar ci cosaan léegi kas aataytu zaydan dirhaman kenn du defee ni ba feel ji dikkul mooy zaydun dirhamun du dëgg kasawtu zaydan jubbatan ba feel ji dikkul kenn du defee ni li fi cosaanoon ka zaydun jubbatun mubtada xabar déedéet kon feel ji du naasix loolu nag buntu kasaa bépp feen bu nasab ñaari mafool te du woon mubtada xabar ci cosaan du dëgg kooku kenn wuutewul ni xad yanoo bu saani amma bu njëkk bi moom xilaaf nekku ci moo doon cosaan nga daal di ni otiya zaydun dirhaman kusiya zaydun jubbatan waa kay loolu moo doon cosaan ndax mafool bu njëkk moom moo doon moo gën a yelloon niyaaba waaye itam kenn wutewul ne dagan na nga bàyyi fa bu njëkk baag nasabam jël gu ñaareel ba rafaa ko ci niyaaba nga ni nga ni kusiya zaydan jubbatun utiya amran dirhamun loolu ittifaaq dagan wa bittifaaqin loolu bittifaaqi naxwiyin qad yanuubu lmafulu thaani min baabi kasa ci lépp loo xam ne ñaari mafool yi doon mubtada xabar ci cosaan mafoolu ñaareel ba qad yanuubu anil faa'il fii maa ci la nga xam ni umina wóolu nañu iltibaasoo lëntam la nu wax nag bu lënt naree am ah nañu bàyyi ka doon cosaan nañu def mafool mujj mafool bu njëkk ba muy naay su lënt naree am niki lan nga ni tey amaa boo nee otiya zaydan dirhamun wala kusiya zaydan jubbatun du tax mafool mu ñaareel lëntoog mu njëkk mukk ndaxte mafool bu njëkk moom bi man si taxawaay fa maanaam faayil dafa ne ci moom mafoolu ñaareel maanaam mafool rek a ne ci moom naka jekk maanaam soo nee tey jox naa zayd oxte a ataytu zaydan dirhaman dafa mel ni da nga ne axada zaydun dirhaman lu dégg kon zaydun maanaam faayil la nekk ci moom noonu la mafool bu njëkk soo nee kasawtu zaydan jubbatan da nga mel ni yow mu noon labisa zaydun jubbatan loolu rek la maanaam i dikkal su ko defee nag bu lënt amul loolu mën na nekk nga ni kursiya zaydan jubbatun otiya amran dirhamun lënt du fa am danañu xam ni dërëm dañ koo joxe doonul ku ñu jox mu nangu waaye cey soo noon a- ataytu zaydan amran léegi nga ni otiya ba mu nekk